am nañu ci géej ba am déet la parce que incha allah day fees si kàttanu yàlla am nañ ci yaakaar parce que li mu leble la te suñu borom xol lay fay te moom xol bu rafet la yow macha allah yéen a ñëpp jàpp ku ci xewle mu sonn ci tamit donc yàlla dina ko fay xolam incha allah. lañ koy diw ba mu fees. asaay fees na ba pare wala gisoo fees kon jeex na amatul fii wax ba suba incha allah di nga gis ay mais est-ce que du risque Sidy Diop est-ce que du si Paris la ba mu fees kon fii jaaxaluñu ñun. kon boog su ma fi jaaxle wu ñu ah moom nee na ma nee naa ma naa boole. kon boobu ñu ngi salaamaaleykum. ah te doo ma dugal di toog si liggéey bi bala ngeen góor ñi. bëgg leen kii bëgg leen kii dem noonu. kon nañ xaar suba nee na si jëm saa yoon suba day indi li nga xam ne nii moom moo nekk lu bees lu bees lan lay doon. Ousmane a ngi nii Ousmane a ngi Ousmane kaay wuy presse Ousmane moo mën a sant rek. waaw yow yow yow xoolal ma sant bi jëloon sant jëloon sant. Ousmane tax nga mën a sant jëloon leen ma sant si kaw ba suuf. mais gars yi maa ngi leen ziar baax baax baax baax. mais doy na ziar. mais naka moom. tout noir nga laal. waaw mais noonu la demee bis moo ko laaj balance bi suba ñu génn feneen. Sidi Diop. Uh-huh. examen la pour moom. Uh-huh. wala ou pas. non man je ne passe pas que examen si moom nag examen bi jàll mooy Zénith bi Zénith bi Sall Zénith boo gën a rey léegi te Sud daxaa daxaa di ko fees dell foofu ay millions moo dafa dugal chaque fois fii bi dix mille deux mille cinquante mille cent mille fii fees na ba pare waaw fii fees na pare ticket bi jeex na ticket bi jeex na waaw incha allah alors lan lan lay mën a xaar maanaam suba si côté show si côté lumière si côté spectacle waaw dèjà moom incha allah suba moom di ngeen gis lumière dèjà gis ngeen son bi déglu ngeen son bi da nga gis yeneen spectacle yu bokkul ak yu gars yi def. est-ce que mën nañu gis loo xam ne awoon du rawoon Zénith maanaam fii si mais bien sûr pourquoi pas fii mooy raw Zénith ndax Zénith fii la dëkk te looy def dëkk jàmbur bu réew maanaam boo ko defee ci dëkk bi yaa ma gën a xam. surprise kan la ban artiste. surprise artiste boobu noonu rek dafay def nii la say. d'accord kon comme ngeen am artiste bi def noonu la say comme ngeen am. nu mu tudd. lamb yow la xel lañ. Euh, mais seen comprendre basket. waaw seen série li mu balance nii. waaw lii du yëpp xale yéen ngeen moom xaw ma wax mais du ay way. mag nga doon indi mag bi. ma na fay jaar suba. dëgg la wax suba mooy invité d'honneur man Ousmane Bongo maa ko wax mais est-ce que moo tax du egg si. ah non dañuy laajte rek. mais xanaa Waly Seck du sénégalais. xanaa Waly Seck du waykat xanaa Waly Seck du artiste xanaa Waly nekkul rek. Sidi Diop li ñëpp bëgg mooy mu ñëw ma invité d'honneur bi incha allah rastamaan bi la dina ñëw si kàttanu yàlla. rastamaan bi. waaw kii jàpp di wëndeel. fu waa maa ma alors Zeyna moom suba teel la bokk. voilà moom demoon na Zénith demoon na ci donc question baa ngi waaw xam nga fee euh, am na ñu bari bëggoon nañu dem mais amuñu woon opportunité dem xam nga ni léegi ambassade yi visa yi mooy loolu euh, ñu ne nag bu ñu jugee euh, Zénith bu Paris dañuy ñëw et organiser benn raxas boo xamante ni ñi bëggoon nekk nekk ay fan Sidi Diop te bëggoon dem jóge foofu mënuñu dem ñu mën a ñëw fii euh, su ko defee Sidi mën leen bégal. alors pour une fois Sidi Diop tëgg Esplanade du Grand Théâtre fii artistes yi mag la ñu war a la plupart amuñu ko feesal amuñu ko am ak Sidi Diop ñëw ku meloon espace waaw xam nga feesal du problème bi xam nga pour man Sénégal war nañ dépassé fees temps feesul nañu xool artistes yi ba xam mu ngi am performance comme moom suñu père la donc borom Serigne borom Dakar donc euh, Moussa euh, Bondoor salaamaaleykum. maaleykum salaam. alors tey sa frère sa doom moom mooy tëdd fi nga xam ne Fana du Grand Théâtre c'est la première fois mu koy def ànd nga ko. waaw fierté la ci am xam ni euh, xale bi moom bëri ko mbartal la ñun ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom xam nañu ko am talent la. bu ñu jógee Zénith ba léegi xam nañu mën nañu koy yóbbu fële donc grand théâtre benn genre euh, pierre angulaire la wala benn genre charnière buy def transition entre internationale ak carrière nationale. et je pense que bu ñu fa jógee am nañ tournée euh, Canada États-Unis et même euh, dans la sous-région pour def la promotion de l'album aussi def la promotion de la communication chéri boy mi ma la noppee yaay buñ la ci bëgg a xëy dem ba ma xale bi ni ma la noppee buñ la ci bëgg a xëy dem ba ma ndax bëggeel xoolu tukulóor te xoolu séeréer bi buñ la ci bëgg a xëy dem ba ma ci nga bi yem nga bi yem ka waala mama waa ji mama naa personne a poussé pour moi. Let's go! Refuse.